di remercier ñëpp ramasaw maa ngi lay ziar képp koo xam ne dangaa bàyyi sa temps rek ñëw toog di ma seetaan maa ngi lay ziar naw ma woon tontu parce que damaa ne jubbanti du pour toog di saaga du pour toog di sosalaate jubbanti dama fee dugg te ba may baalu ak Françoise Hélène Gaye dafa toog ne ma bëggatuma ngay saaga moo tax bu ma live sama page di saaga sax da koy bett dama bëgg ngeen xam ne man duma tontu bojo bojo duma leen tontu te bu ngeen gisee ma tontu sax parce que da ngeen ne dama daw man gaynde la duma daw seen bay Assane Diouf sax mako gëna nek gaynde parce que mom tàppet la gaynde buy bëw la te bala ngeen di xam ne seen Assane Diouf kuy bëw la ma ak mom bu boba ngeen di xam ne man jigéen ju mën leen ma de bojo bojo Assane yoy Assane yoy apprenti góor jigéenu Assane Diouf yooyu da ngeen toog di leen di woote di live man da ngeen maa bloqué partout man munu ma leen gis kon man lu ngeen ma duula lu may saf Aboubacry Mongol yow moom sama jëkkër ba mu la wooyee keroog nangu ma ko woon tudd sax ndax nekku fi ma koy nuyu de passage mi ngi Turquie ma koy nuyu naan ko chéri mon ba ma gisee jéggal ma ndax xamoo woon ne dinaa tontu ne woon naa la bàyyi naa tontu mais daa am moment yoo xam ne il faut nga toog tontu leen il faut nga tok tontu len parce que ñii nagam ay góor yéen yo sen sunu fessul sen tubay ngeen meuna tok saga jigen jigéen asama la ñun jigen nga na man dama la wo di la ñaan iphone man de iphone bi la am iphone 7 la jënd la jënd de sama jëkkeur bexi man ba may ma iphone 8 plus de goma de dama bëgg nga deg deg ma mom mo nek ni 8 plus ba nek ni 7 bi lay laay hein ah. mais 8 plus ba nek ni

buma kenn ay way Serigne salou neena ma na rafet Serigne salou il faut tay ma xorom vous buguma won live c'est page pas page Vous Hélène parce que amna yo xamne buguma ko wax fi man ak Françoise Hélène Gay man ak Françoise Hélène Gay yor suñu yor suñuy heure bu neex Sali Job, Dom xaram bu toccatu ndayam bobu di tok di len Ren job, yow Ren job yow moom Sally Diop naa ñëw ci yow 1 m 01 maa ngi ñëw ci yow di ngeen xam ne jigéen a jàkkaarloog yéen jigéen boo xam ne yéen a ko mag ëpp ko lees sut ko moo jàkkaarloog yéen di xawam seen job bu ndey duma leen may dara nee naa leen Hélène fu ko doomu xaraam yële tuddatee man maay toog jàkkaarloog yéen nangam taat seen tuunum nday parce que Françoise Ellen Gaye ba mu toogee di liggéey boobu seen ndey ak seen bàyyi ñi ngi ca àll bay bay Reine Diop Sali Diop seen data nday e bu waa e, dëggal suñu bopp jógee nu mu tudd xawma ma Baye Fall si nañu live heure bu Assane yónnee ñaari doomu caga yu dotam yooyu rek di ñu saaga man ak Hélène xam leen ne foofu ñu koy live seen diggu datanday la ñu xàppi di ko live ngeen ne xawma sal dégg naa leen seen wax yi sax ngeen naan ay Cheikh Mbaye Cheikh Mbaye àdduna am na yow Cheikh Mbaye yow dama bëgg nga génn ci live àdduna am na solo ndax gis naa la nga dem fa saagawee Hélène dinaan ay di na Hélène gën a nangam tàndaye maa la gën a gis man yëfu naa fekk yooyu doxuma ci seen affaire naa fekk yooyu doxuma ci nit ki di la rey ba pare yéeg ci kaw nan dalay jaale man gëmuma loolu bay leen naa fekk sénégalais yi bàyyi leen naa fekk leen jóg yow moom dangaa naa fekk ba mel comme sa baay xaaral xam nga yow sa baay ancien journaliste la woon ana YouTube sax ma génne la sa baay xam nga yow sa baay ancien journaliste la woon ren Diop mu liggéey ci journaliste bi ba torox ndeysaan amul lu muy def fan la mujjee dem di naan day sëriñtu day ñaan sa baay lu mu xam sa baay bu xamoon dara ba ma commencé xorom sa job bu ndey bu yàgg du ma noppi ren Diop yow ak OCR képp koo àndal seen data nday man duma leen daw du da ngeen posté ne joor daw na nax nga seen bopp duma leen daw benn yoon heure bu ngeen toogee live saaga ndayu ak Hélène rek dinaa génn xorom seen data nday yéen ñëpp xorom data nday Assane Diouf Assane Diouf sa data nday sa data man joor maa la ko wax Assane Diouf heure bu ñoom xola heure bu sa góor jigéenu doomeeraam yi toogee toog di naan ay Hélène ak Joe rek Assane xamal ne gis nga ñoom li ñuy wax naan ñun ay data yu infecté dañoo ñàkk fayda sa data nday ak data ndayu ah, ah, sa data nday ak data euh, nu mu tudd sa rek bu jigéen boobu euh, nu mu tudd sax waay kii waay nu mu tudd waay moom gémmiñ gu yàbbaaral googu nu mu tudd kii waay euh, damay fa nday Diouf nday Diouf yow ak nday Diouf data nday Diouf ak sa data nday ñoo infecté Assane Diouf Assane Diouf sa jëwam ñaari xonkalu nday Assane Diouf saa yoo xëyee saa yoo xëyee ba teg sa tànk rek xamal ne joor heure bu yeewoo mi ngi sëlmu sa diggu data nday Assane Diouf Assane sa lëfal ndagi danga naan xorom yow munoo xorom yow li nga xorom état bi doyul ñun ñi man mii may jël di ko xorom sa data nday ba mu gën a saf doomu cottu ndeyam bi yow nga xam ne sa yaay daa yàq dataam Assane bu élément yi génnee dinaa génn téegal sa nday téegal ndayu ren Diop xorom job bu ndayam ren job yow nee naa la sa photo yaay am naa ko damay ping pong sa baay ba un une année soo ko génn sa photo yaay yéen xamu leen ma man duma leen duma leen coxam cox dama leen di dama leen di siroté Sali Diop yow moom naa fekk bu toj sa cottu nday nga barki Dembo Ndiaye nga ma ne message nan ma Aboubacary lépp lu mu la wax day sos yow yaa nekk seen ginnaaw yeneen bojo bojo yi yéen du ma ñëw ci yéen yeneen bojo bojo yi du ñëw ci yéen parce que dama leen di may bës kenn xamu ay dof ay duutkat kese ñoo nekk ginnaaw Assane Diouf seen data nday man may toog di xorom job bu ndayu Assane Diouf du yaa ñu engagé woon pour ñuy saaga ci Sall tey laay toog di ndërmeeru sa diggu datan day jël sa kilistóori day xoola weer ko ci naaj bi ba mu wow jël ko dagg ko géej yóbbu ko subbe ju ñu koy jaay sam ko nag képp ku mer xoolal ku ànd ak OCR ku ànd ak xoolal Assane Diouf seen lëfal nday man maa leen ko wax ma may leen Pape Diouf ngeen bëggee tuuti en huit tonnes ñi may seetaan waa jubbanti ñi may dama bëgg ngeen xam ne saaga du yëfu góor du yëfu jigéen waaye neexul tamit ay ñaari ponkalum góor ñaari ponkalum góor toog Assane Diouf yabal leen Reine Diop yabal leen Sali Diop yabal leen ñu toog di saaga dayu Diop di saaga ndayu Hélène chaque jour di yàq Hélène lu mel ni xeme bàyyi leen di wax saaga baaxul bàyyi leen di wax saaga baaxul saaga neexul ci kenn man liñ may saaga méttiwu ma de parce que j'en ai rien à foutre dama toogoon fi di saaga Macky Sall kon buñu ma saagaa du ma saf mais neexul ay góor yu ne lañ yor seeni kooy yoo xam ne matul toog di saaga guddeeg bëccëg ay jigéen te chaque jour même saaga yi la ñuy saaga jàpp doomu jàmbur di leen posté seen data nday Assane Diouf yow boo amoon bu tekki da nga nangu ñuy posté doomu jàmbur yi sa baay bu tekki woon da nga nangu kuy posté sa baay sa nday bu tekki woon kanamam bu ñaf ndayam xam boobu da ngeen di wax ñun dañoo salté mais Assane Diouf ñun ñoo gën a set sa nday gis nga sa kanamu nday sa data nday Assane Diouf sa data nday laa la wax Assane Diouf yow ak sa mag jooju noonu xaw ma nu mu tudd seen datanda yéen ñaar il faut ma jàpp turu gel bi kii euh, kii waay sa mag bi bindal leen ma turu maga Nday Diouf yow ak Nday Diouf seen datanday data sa datanday ak datanday sa datanday ak ndayu ak Nday Diouf datan boobu ñoo katt seen nday infecté sa nday sa mag yooyu nga am yëpp seen datan seen data yi ñoo infecté doomee xaraam yéen Françoise Hélène yow Assane Diouf dalaa gën Assane Diouf Françoise Hélène moo la gën ngay duul naan yaa ko may mbooloo yo ah, Hélène moo la may mbooloo parce que boo duggul woon ci live Hélène duul ne dañ laa jàpp dañ laa junti waris di nga foog ne nit ñi dinañ la xam kattan sa ndey ngay yàgg live est que nit ñi dañoo mës a toog wax ci Assane Diouf sa data ndey Assane Diouf yow yaay kan ah yow yaay kan yow lan moo tax nga wax loo loo wax Sali Diop Sali Diop topp c'est parce que danga kaa kat Sali Diop sa cagala woon Sali Diop sa cagala woon nga koy katt hôtel di ko tëddee hôtel looloo tax Sali Diop loo xam mu topp ci ah seen data nday yéen ñëpp fii laay toog di ndërmbeelu seen biggu data nday di ci laax di ci tànn di leen ko jox di ci man ak Hélène gis nga ñun nag yàlla dañoo taal ba pare man de Hélène a ma may buzz Françoise Hélène Gaye moo ma taal ku ne Assane Diouf a taal yaa ngi duur sa nday Assane Diouf xam na ne man taalu ma ndax man faalewu ma dëjëw ndayu Assane Diouf yéen yéen a ko tiit yéen yéen ko tiit man faalewu ma Assane Diouf Assane Diouf yow Assane Diagne yow yow moom apprenti góor jigéen nga du ma la tontu benn yoon parce que booy wax mel ni yow da yërëm naa sa jabar yéen li leen metti dama leen ko tegul li leen métti dama leen ko tegul yéen àdduna du neex ba ngeen am fi mu nekk nii da ngeen a sonn xam nga nekk diaspora bi ci Europe bi dafa métti un sedd bi dala la rey deux amoo jeeg bu mel ni joo trois loolu rek ngeen may gis seen xol di bu naanaat moo tax ngeen may yàqalu ne mais lu ngeen may yàq xoolal safuma mais neewoon naa leen fu ngeen tuddee eleen ma jug xorom seen job bu ndey Assane Diouf ba ñuy téegal ndayam mu may woo jamono ji na xam ne moom moo jot ñu xorom data ndayam boobu mënu leen mënul leen te Assane Diouf ay élément wam mënul sa ay élément bu ñu mënee Assane Diouf nañu toog jàkkaarloog man face à face yow mii seen baay boo mënee nga katt sa ndey toog jàkkaarloog man ñu live du ne nga yaa fi tujj xorom billaahi live bi nag bul ma bloqué de da ngeen may débloqué comme ni ngeen def da ngeen maa débloqué partout débloqué la débloqué ba Assane Diouf nga woo ma nag booy live nag ba defal nag live boo xam ne danga naan joor laa invité invité invitation d'honneur bi pour ñuy xoromante doomi ram yow Reine Diop yow moom escroc nga yow yow ñëpp laa xam yow góor boo tëddee escroc escroqué nga ko bu la joxee cent euros benn daanu wala mu jox la deux cent euros pour ñaari daanu escroqué nga ko beneen cent euros bi moo tax sa baay ba mu demee di journaliste yow Reine Diop sa baay Boubacar Diop ancien journaliste lan la woon ba mu demee dem journaliste amul cottu ndaay fan la mujjee ne day seet lu mu xam lu mu xam Tunkara invité na ko 2STV munu fa sax tari euh, Fatia bu jub sa data nday leen jub sa data nday yow Sali Diop yow moom keppal sa data boobu bu ñuy wax data bu infecté sa data boobu moo kat sa nday infecté yow Sali Diop ba ngay jaay na fekk naa xorom sa data nday ba nga xam nga ne yow 100 euros yi ngay wax di duul ndayam ñoo wax nee nga nee nga ay nit ni ñu ñëwee ci man di ma wax la ñu ñëwee ci yow di la wax Sali Diop gis nga man ndagam maa toog ne assan Diouf sa data nday Sali Diop bu ma la bëggoon wax kattal sa nday comme ni ma la ko waxee ni dama lay woo ne la Sali Diop xoomal sa job bu nday képp koo xam ne nag ñëw na ci yow wax la nee ko jow day dul ndax man ku ma xam xam ne du ma jëw Sali Diop man ku ma xam xam ne du ma jëw boo ma wooye dama la naan ubbil sa copparetu nday Sali Diop sa data nday yow loo mesuré nga mel ni chinois doomee xaram yow est ce que yow sax sa sperme baay dafa baax est ce que dañ laa defar doomu saram ndayam bi ngeen toog fi di yoon ngembalaay mbay ak Aboubacar ñuy saaga dañu ngeen fogg ne ñoo dañ ma sa ak dàq ñoo ñu seen xol mo jeex seen xol mo jeex mo xam nga lu tax seen xol jeex parce que dañ may gis may toj chop nday asan duuf te mënu ñu ci saxam ndayam di loxo sa data nday te mënu yow Aïcha Diallo yow tam dina ñëw ci yow mais bu xorom sa job nday bi xolli sa data nday omelette sa régalu nday doomee xaram yéen dagam góor yéen yéen yow yéen dagam góor yéen bari daam xam nga lan moy problème bi asan Diouf Sali Diop ren Diop Euh, ak benn maire boo xam ne dem na maq ñaari yoon dañoo njëmba ku tudd Aboubakary lutte benn mouvement lutte contre l'injustice lañu wax de mais dañ leen njëmba pour ñuy poster Hélène ak dama saaga lan moo tax ñu may saaga Assane Diouf daf maa woo xeexal ma saagaal ma Hélène mais saagaw ma Hélène est-ce que loolu dafa jar ñu may poster loolu dafa jar ñuy toog di saaga nit ñi ak poster doomu jàmbur ñoom ñooy ñan Assane Diouf mooy kat bu jógee di katta ndayam duul naan ay dafa Sénégal dafa woo cottu ndayam bale woo fenn peinture woo fenn ciment woo fenn da ngay toj sa cottu nay dul sa po sa rës Assane sa data nday Assane Diouf kattal sa job bu nday dafa woo dara senegal ay man damaa xeexal Sénégal ba ñu reporté ma kenn kenn dippoté la ndax Sénégal da ngay duul Assane Diouf buñ la dippotoon ndax senegal doo ñëw senegal na États-Unis jënd nga sa terrain pour euh, sëñ Touba te amoo ko yàlla na ma yàlla baal ci turam bi sax ak saaga bi Assane wax dëgg bàyyi duul yi yow da ngaa xam ne man joor dama laa comprendre Hélène dalaa dalaa comprendre mënatoo am si ñun sa ndayam moo tax ngay yónni ñu ñu saaga sa data nday Assane Diouf te balaa nga ko doon xam ma télé Sénégal Assane Diouf nee naa la gis nga man boo ma maaree ba maar maa la gën a bandi yow bandi woo jàkkaarloog yow face à face nga ne ma yaa ma saaga ma ne la xoolal xoromal sa data nday Assane Diouf ne naa la xamoo ma da ngay réewantu mais xamoo ma du ne yow yaa ubbi Sénégal di wax li fa xew man bu ma xamoon li xew Sénégal du ma toog laay bal waa Sénégal mais da nga ñew dul ma fen ma do doomeeram han ah, di lek xaalisu nit ñi di yon nit ñi pour ñuy saga nit ñi yow yaay kan kay and ak man ànduma ak man dafa jang nga yebal ay nit ñu may saga sa data nday Assane Diouf neena la bojo bojo buma saga yow lay genn toj sa ciotu nday wax na len ko gëmoo ren Diop bojo bojo buma saga yow lay genn xol la jël sa koyu bay ba bale nga xam ne dafa journaliste ba rasu do me xaram caga bu kat sa nday bi nga doon han ah? yeen da ngeen ma mën xass man yéen da ngeen ma mën wax luma saf yeen man mënu len ma wax lu ma saf xam ngeen Assane djouf amul enema ndax man ngeen nan dama daw man jox duma daw heure bu ngeen toge saga mo ma genn to ciotu nday Assane djouf ah doul rek ah góor yo xamne da ngeen di xey suba ba njant so di saga ay jigen pour lan ah pour lan yeen yeenay ñan Assane Diouf yow boo doon góor yow boo doon góor Assane Diouf ngay kilifa yow foo déggee laay mbay ak Aboubacry toog ñu saaga lan mooy ndeyu lan moo tax nga toog saaga elen te kattoo sa nday génn saaga ñoom lay mbay ñi di saaga yow ñun ñun boo toogee ñu ñuy saaga ngay kontaan sax sa sa ñàkk jom la parce que ñun ñoo la doon xeexal te boobu dañ ñoo i manipuler ñu ba ñun ñu xeexal la sa data nday Assane Diouf na ma ku nekk jugé mais man ku ma tooñ damay génn heure bu ma saaga waa rek dañ maa heure bu ma saaga waa dañ maa tooñ bu ma bu ngeen gisee ma toog di animé waxuma dara daa fekk ne kenn yëngalu ma man nag du ma soog ay doome xaraam toog di ma yàq lu ne ma toog di leen seetaan heure buñ ma saagaa rek heure buñ ma saagaa rek te Assane Diouf moo leen yónni Assane Diouf yow laay xorom sa job bu ndey si Cissé Diop yow ak waa OCR yëpp la seen datam ndey comme ni ma waxee dëggal suñu bopp ak Baye Fall yi rek dinañ teppi leen seen job bu ndey ngeen jëm liggéey liggéey seen kër yi doomee xaram ngeen di wax ay joor daf ñuy woo di ñaan yéen man yéen man li may am par weer seen bay Assane Diop wala seen nday leen Diop sax dakaa am seen sarab nday waay yéen yaa leen ma teg bët ah yéen yaa teg bët Assane Diop sax data nday man seen bay Assane Diouf laay xorom job bu ndayam seen lëfal nday gars yi maa ngi maa ngi yemale fii live bi nawa moon génn sax mais ni ñu attaqué Françoise et Hélène Gaye attaqué ma moo tax ma génn li ma attaqué li ñu attaqué Hélène moo tax du da ngeen ne dañoo tàppet nee naa leen ku fa laalate Hélène baa nga tudd joo rek ma toj seen cottu nday yéen ñëpp loolu moom dama leen ko signal te nag duma leen bojo bojo yéen duma leen tontu de Assane Diouf laay fulli koo yu baayam ren Diop toj da data ndayam boobu ak Sali Diop Aïssa Diallo seen data nday sa Aïssa Diallo yow moom naa